justice est-ce que munu waruloon autosaisir wu ci dossier bu mel nii ci kaddu yi nga xamante ni tey mën na yee fitna ndax euh, waaso tey euh, mooy li nga xamante ni bu bu bu duggee ci réew rek xaw koo jaxasee ndax justice waruloon autosaisir wu ci dossier bi euh, wala ci kaddu yi nga xamante ni tey Gaston Mbengue yëkkati nga ko jëmale ko ci Barthélemy en principe justice war na mën a autosaisir parce que lu mel ni dafay yàq dëkk. Mhm. deuxièmement aussi battre aussi war na porter plainte en principe parce qu'on est dans un état de droit moom battre aussi ñu que dara te ko ci askanam wala askanu ci jëm ju porter plainte Mon garçon aussi mu retirer ses propos. vous fekkente ne procureur a dossier bi ndax nañ ci am ndax gis dossier euh, de politique mais finalement nous président le président nous aussi procureur de la république le ci mu yabi ci. wa xam nga Sénégal mom ni koy ñëpp am il faut que moi, l'indépendance de la justice fi amul rek fay poser problème parce que fay am kumba am te loolu baaxul ci dëkk. da ngaa yaakaar ni justice bi dafa indépendante. Euh, non dafa war a indépendante waxuma actuellement li sénégalais jàpp mooy justice yow lan nga jàpp man dama bokk ci ñi gëm ni justice dafa indépendante. parce que tey war na mën a leeral li nga xamante ni moom moo am ci yu bëri te ñi ngi koy xaar aussi surtout les hommes de la justice parce que jàpp naan ay nit la yoo xamante ni fi leen Sénégal teg ak euh, privilège yi leen réew mi jox war nañu far ak sénégalais mais pas ñuy farak euh, ñu toog ci nguur. Mohamed boo Mamadou boo ne justice bi dafa indépendante Tay, est-ce que bu fekkente ni Tay, suñu ou walla président de la république walla ministre de la justice ñooy tànn tey ki war a doon magistrat qui ki warul doon magistrat mooy ou walla di affecté ay magistrat Donc ndax indépendance de la justice lañ ko mën a c'est que comme que suñu constitution moo am nu nous bindee ñu jël président de la république daanaka ñu jox ko tous les pouvoirs boo seetloo mais quand même il y a la séparation des pouvoirs car bah, maintenant, tu constitution pouvoir judiciaire pouvoir législatif bah, le pouvoir judiciaire non ci li bind ci C'est ce bind damay important. Euh, ma ci waxin moom li am ci bind parce que normalement bu ni ci constitution ñun ne dañ c'est là où les Sénégalais tey ma ci interpeller ñëpp ndax tey boo gisee ñoo lànk taxawaayam ci Sénégal peut-être tey loolu la taxaw di xeex gis ni carrément dafa am ñoo xamante ni dañ leen di jàpp ñu def franc grand de le cas de Bougazelli tey mu ngi nii disponible ba doom demandé ne day doon candidat di bëgg maire kon donc nga xool ni loolu buñ ko xoolee ko ci ni def feebar te am na ñeneen ñu ko gën a feebar wala ñu gën a def lu gën a moins grave tey ñu ngi ci biir ñenn ñi nekk ci biir dëkk bi di taxaw kon donc boko ko ci cadre boobu da ngay japp ni e, ñom ñi nga xamanteni ñom ñoom ñoo faree nguur gi tay dafa am ñoo xamante ni ku ñu bëgg mu nekk ci biti nekk ci biti ku ñu bëgg mu nekk ci biir mu nekk ci biir ça loolu ngay japp mais justice en tant que institution benen institution du ñëw di interférer ci liggéeyam lool du bloquer liggéeyu justice. wa c'est-à-dire foofu nag euh, li li ma ni tay war nañu mëna organiser waat justice su Sénégal su ma nee organiser waat justice su Sénégal mooy ñu jox opportunité tey exemple.